bonjour dal leen ak jàmm ci seen site yi di VIP people VIP info point net ngir am ay xibaar yu leex te dëggu ginnaaw su ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee bés cloche de notification bi tey ñu xëy aljuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atum 2020 ñu indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi li gën a ci yéenekaay yi tey nag ñu ngi koy tàmbale yéenekaay bi di lii quotidien li gën a fës ci yéenekaay bi di li quotidien suñu natango bi jiite ko di Babacar Dione tey ñu ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci convocation kii di juge Téliko maanaam fële ca inspection générale de l'administration de la justice ñoom daal jàpp nañu tentative de museler l'union de magistrats la suñu sukkandikoo ci union de magistrats du Sénégal jàpp nañu convocation boobu du dara lu dul benn tentative boo xamante ni dañu bëgg a lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu union des ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di lii quotidien ñi ngi xamal cambriolage suivi de viol maanaam dañoo cambriolé ba noppi teg ci viole dix ans ferme pour la bande de jazz jàppaleen ni bande jazz bi ñu maanaam def ñaaw teef bi nga xamante ni bi ñu cambriolé par dañ ci teg viol tribunal tëj na leen lu toll ci fukki atu kaso ba tey yéenekaayu Babacar Dione bi mi ngi fësal kii di nataalu président de la république ginnaaw visite bu mu defoon foofa ca ndox ya fële ca Kër Massar Kër Massar érigé en département jàpp leen président de la république bu mu demee foofu daal jox na leen ndàmpaay bu rëy lii di Kër Massar président de la république def na ko département ba noppi yëkkati lu toll ci 13 milliards teg ko foofu nga xamante ni dañuy defaraat gox googu muy stratégie boo xamante ni stratégie politique la boo xamante ni kii di président de la république Macky Sall jël na ko ginnaaw bi fa opposant yi demee gars dem seeti leen wax ji bare kërti kërti président de la république moom bu mu jógee dem fa dem na xuus ànd ak ay ñoñam ki ko ki ki ko gunge woon nag di chef du gouvernement di Boun Abdallah Dionne moom daal dem na nee na Kër Massar dañ koy ériger def ko département muy stratégie politique boo xamante ni kii di président Macky Sall lalaat na ko. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Source A li ñu gën a fësal tey Téliko écrit à ses collègues de l'UMS sur sa convocation la lettre de mission de l'IGAD l'inspection générale d'administration de la justice teneur d'une correspondance loolu la Téliko bind ay natangoom ñoo ñu nekk foofu ci UMS di Union des magistrats du Sénégal ba tey ci visite du président de la République foofu ci jeune inondé yi ci Kër Massar Macky Sy près de son 31 si loin des sinistrés maanaam daal yi dafa sàppewu ba mu rafet rafet dóor costume am dóor cravate ba mu nekk ceeg mais nag dafa sore woon trop sinistrés yi loolu la yéenekaay bi fësal di euh, source A. su ñu demee ci yéenekaay bii di laas ñoom ñi ngi gën a fesal encore li nga xamante ni dox na ci visitu président de la république Macky Sall foofa ca Kër Massar ñoom daal leen la ñu xamal Macky est venu à promis et il est parti Macky daal ñëw na taxaw na promettre na leen dina leen defal département yëkkati ay milliards jox leen ko pour ñu defal ko ba noppi mu daal di dem yoonam maanaam Macky est venu a promis et il est parti loolu daal la gars yi wax. lii nag di beneen kawteef boo xamante ni mën nañ ko tuddee banditisme suñ ko tuddee banditisme maanaam mooy benn policier moo perquisitionné benn kër boo xamante ni amul woon mandat benn spé la woon mais policier ba muy dem foofu amul woon mandat de perquisition boo xamante ni war na ko dugal ci kër gi waaye ba mu duggee au lieu que mu yem ci perquisitionné policier ba dafa sàcce foofu ay millions maanaam lu toll ci 6 millions sàcc na ko foofu lii daal mooy banditisme boo xamante ni kii di quotidien laas fësal na ko tey ci yéeni kaayam su ñu demee ci yéenekaay bi di l'évidence li ñu fesal tey lépp loo xamante ni jëm na ci gestion de la Covid 19 inondation crise malienne muy ñetti problème yoo xamante ni am na ci réew mi l'AFP vante les mérites du chef de l'État kii di Moustapha Niass jiite AFP vante na les mérites du chef de l'État maanaam lu jëm ci wàllu Covid 19 bi Sénégal moo jël deuxième position inondation yi nee na daal Sénégal euh, président de la République defar na lépp lép lu jëm ci crise malienne yi nee na Macky Sall dugal na ci loxoom moo tax kii di Moustapha Niass euh, jiite AFP nee na yëpp kenn ko moom di président Macky Sall. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'évidence kii di Bouna Kanté buntak Bouna Kanté nag nekk foofu membre ca APR moom daal jàpp ne Sonko use de tromperie pour dresser le peuple contre l'État jàpp ne Ousmane Sonko lu muy def yëpp maanaam ay fen la ay nax la ay naxaate kese la pour dresser peuple bi contre État du Sénégal du samay kàddu nag kàddu Bouna Kanté la dekk foofu ca APR suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Walf Quotidien li ñu gës a tey ci seen yéenekaay effet de la crise sanitaire la production industrielle en chute libre maanaam lépp loo xamante ni jëm na ci crise sanitaire bi daal production industrielle bi maanaam ci chute bu métti métti la nekk ba noppi ñu teg ci Macky Sall aux populations inondées président ne pas arrêter le ciel nee daal Macky Sall mënul arrêter ciel bi ndaxte taw bi tawu yàlla la yàlla mooy wàccee ndoxam saa yu ko soobee dañ jàpp ni que daal du Macky moo mën a arrêter ndox bi Kër Massar érigé en département l'opposition divisée le chef de l'État surfe jàppale ni que daal bi inondation yi ñëwee ba tey ji daal coow li bëri na trop trop trop trop foofa ca Kër Massar Parcelles Assainies maanaam def nañ ko département l' opposition bi divisé wu ñuy ñii ñi ngi xeex de gauche ak droite jàppale nekk nag jamono ji l' état surfe sur des vagues maanaam ay vagues la nekk daal dañuy yéeg wàcc yéeg wàcc comme vague daal géej nu muy yéegee di wàcc ki ko fesal di yéenekaay bii di wal Walf Quotidien su ñu demee ci yéenekaay yu des média bi di tribune ñi ngi xamal visite dans les zones inondées de Kër Massar Macky Sall président à sec jàpp nañ daal Macky Sall président bu wow koŋ la koŋ koŋ koŋ à sec sec sec sec daal la ñuy wax en costume il n'a pas modulé de souliers maanaam costume am la door dóor ay souliers yu rafet solul ay bot solul dara moo tax daal jàppale ni que daal visitu Macky Sall boobu daal ñeen ñi ñu ngi koy gàññee bu baax a baax comme ñi nuñ jàppee dafa ñëw toilette ba neex nekk si 31 am taxaw na le bàyyi sinistré ci ndox bi ne leen dinaa leen defaral Kër Massar département ba noppi yëkkati ay milliards jox leen ko pour ngeen defar dëkk bi foofu daal la yem moo tax tribune fësal ni ko Macky Sall président à sec du samay kàddu kàddu tribune moo ko wax ba tey suñu sukkandikoo ci tribune ñi ngi fesal nataalu kii di Bougane Gueye Dany ak Ahmed dara ginnaaw ba ñu demee foofa ci tribunal ginnaaw benn plainte boo xamante ni kii di maire Guédiawaye di Aliou Sall déposé woon na ko contre groupe des médias ak euh, kii di ay dara di Guédiawaye laa bokk ginnaaw bu mu nee diffamation ci kawam ne ay dara moo ne woon euh, dafa jaay mairie euh, mairie Guédiawaye waa Auchan Aliou Sall porté woon na leen plainte démb nag la ñu waroon jàkkaarloog juge bi Bougane Gueye mi ngi nii sañse mel nii taalibe Baye Niass dóor meubam bu baax Ahmed Aïdara dóor ñaari pièces sam takk seen ay masque jubal tribunal waaye procès bi mujjul am dañ ko renvoyé ba le octobre. ba tey ci yéenekaay bii di tribune ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu immigration clandestine maanaam ñii di jël gaal gi maanaam pour dugg Europe jàpp leen lu toll ci 70 personnes dont juróom-ñaari femmes muy 7 personnes arrêté nañ leen foofu ca Fatick yaakaaroon naa ni sénégalais muus nañu ba bàyyi gaal bi ndekete ba léegi ñi ngi su ñu demee ci réew mi people réew mi people lu ñu fësal tey maanaam benn interview la jagleel kii di euh, humoriste boobu di artiste comédien boobu nekk ca Thiès ñu dippee ko Serigne Ngagne Serigne Ngagne daal nee na on ne peut pas faire du théâtre pour être célèbre Serigne ko def rek pour siiw loolu daal la Serigne Ngagne wax ci euh, réew mi people ginnaaw bu doxee digganteem ak Pathé Sène ñiy sànnante ay track depuis boobu ba léegi Serigne Ngagne mi ngi occupé toile de la presse people ak Pathé Sène waaye people ko interviewé daal nee na pas du théâtre pour être célèbre mais Serigne Ngagne moi je te demande on fait du théâtre pour être quoi su ñu jógee ci réew mi people dañuy dem ci réew mi quotidien réew mi quotidien lu ñu xamal muy point e un maçon malien atrocement tué benn maçon la daal boo xamante ni malien la de nationalité malien la moom moo faatu foofa ca benn chantier ba amoon foofa ca point e lu ko faat maanaam machine boobu doon yëkkati briques yi moo jékki-jékki jégu ba ci kaw rek dal ci kawam wax daw si waa ji daal di tëdd daal di dee muy benn la mi ngi xewee ba tey suñu sukkandikoo ci réew mi quotidien ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu corruption à l'IAF promet une guerre judiciaire kii di Massata Diack di doom ci Lamine Diack boo xamante ni dañ ko tëj juróomi atu kaso ba noppi amande ko lu toll ci un million d'euros moom daal promettre na benn guerre judiciaire guerre judiciaire boobu nag kañ lay tàmbale ginnaaw bi avocat maître Moussa Sarr déposé appel démbu alxamis 17 septembre 2020 ba tey ci lutte contre les inondations trente milliards de ressources additionnelles maanaam génne war nañ lu toll ci trente milliards jëm ko ci inondation yi waaye yéen inondation yi sept cent cinquante milliards réglé wul dara ngeen bëgg a génne waat trente milliards mais est ce que inondation yi nekkul benn buug boo xamante ni dañ koy lekkee xaalis wala di fa tas en tout cas ki ko fësal di réew mi quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci réew mi quotidien ñi ngi xamal ministre DG aux fonctionnaires auditionnés Kër Massar va être érigé en département le maire hué et copusqué le complexe du milliard de nos autorités en tout cas lii doy na waar démb daal foofu de maire Kër Massar ba ba mu ñëwee dafa mujj daw ndaxte population bi dañ ko doon yuuxoo di ko yuuxoo yuuxoo yu métti woo woo woo foofu la mujjee jël ay maraakisam daal nee ni teppeet daw wuti ji maireem toog foofu ndaxte dëkk ba ko sooy jiite mairie ba waa dëkk ba soo ñëwee ñi lay yuuxu nga xam ne ni que mairie bi defoo fa dara ministre ministre yi ak DG au yi ñoom ñëpp danañ leen auditionné Macky Sall wax nee na Kër Massar dina ko def benn département en tout cas ay kàddu la yoo xamante ni wax nañ ko fii ci réew mi quotidien suñu jógee ci réew mi quotidien dañuy seete yéenekaay Cheikh Mbacke Guissé bi di libération libération lu mu fësal tey ci nataalam le port autonome de Dakar presque à l'arrêt ah port arrêté na port arrêté na de port su arrêté du baax de koom-koom bi fa lay duggee oto yi fa lay duggee marchandise yi fa lay duggee ah libération nee na le port autonome de Dakar presque à l'arrêt presque à l'arrêt daal maanaam mi ngi waaj a egsi terminus bi AGS le scandale ban scandale moo fa amati port temps yi bari en rébellion maanaam DG bi daal amul benn ndogal boo xamante ni dafa jël gestion parking bi dénk ko benn privé léegi nag amateurs yi ñoom dañu génn nekk rébellion maanaam di xeex fu ñu ko teg en tout cas doy na waar. ba tey kii di Alioune Ndoye convoque une réunion d'urgence pour éviter le pire Aboubacar Sadikh Beye sa bar a Paris ah Alioune Ndoye nag moom Alioune Ndoye moomu ñëwee pour éviter le pire moom daal ñëw na en chapeau pompier woote benn réunion waaye li ci jaaxal ñi ñi kii di DG port di directeur port di Aboubacar Sadikh moom daal daw na toog foofu ca Paris bay ay fii gars yi ak seen ay coow ki ko fesal di yéenekaay bi di libération suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'info li ñu gën a fesal tey maanaam lu jëm ci usine de dessalement des mamelles pour un financement de 137 milliards du Japon jàppaleen dëkk japonais yi bëgg nañu financer benn usine fii ci mamelle bu toll ci 137 milliards muy usine de dessalement des mamelles ki ko fesal di yéenekaay bii di l'info ba tey suñu sukkandikoo ci l'info levée des restrictions dans le transport soulagement aux gares routières de Colobane et Petersen gare routière u Colobane ak Petersen am nañu soulagement ndaxte levé nañu restriction yi maanaam oto yi comme ni ma leen ko waxee woon rek ku si nekk mën nga yeb le nombre de place bi nga yeb waaye en tout cas client bu ci toog takkal sa masque ndaxte yaay doon sa gendarme bopp mbas maa ngi fi de coronavirus mi ngi fii Sénégal su ñu demee ci yéenekaay bii di témoin quotidien lu ñu fesal après les pluies diluviennes à Kër Massar Macky sal évite le sinistrés et refuse de se mouiller ah, ah ah ah ginnaaw taw yi ba mu wàccee daal témoin nee na Macky sal daal dafa éviter sinistrés yi naka la éviter sinistrés yi dem na daal mooy ni ma leen ko waxee solo ba mu rafet taxaw fële te nee na man mii du ma tooy du ma xuus Macky daal loolu la wax ba mu demee Kër Massar ki ko fesal di yéenekaay bii di la témoin quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di témoin quotidien débat sur la politique d'assainissement Ousmane Sonko lance na Gagny Sakho controverse autour d'une rencontre avorté ginnaaw ausman Sonko ba mu newee woon na lance na Gagny Sakho dina ko seeti ñu war waxtaan ci lu jëm ci politique d'assainissement jàppaleen ni ko su doon ëmb la ëmb boo xamante ni ndax saay na maanaam dafa avorté mbaa def fausse couche ndaxte Ousmane Sonko mu mujjul gis kii di lance na Gagny Sakho lu ko waral nag Macky Sall nag mer na ci torop torop torop torop lance na Gagny Sakho élément Macky Sall la Ousmane Sonko maanaam il est contre de Macky Sall et de sa gestion donc ñaar ñooñu seen toog gis nañu piège la woon moo tax gars yi avorté loon nañ ko ban docteur moo ko avortelé nee naa leen docteur bi daal kenn du ko condamné kenn du ko def dara su dee le président de la république Macky Sall da koy takkay raaya jàppale ni ko daal kii di Ousmane Sonko ak Lassana Gagny Sakho mujj ñu gisante ndaxte seen rencontre boobu dafa avorté ëmb bi daal tuuru. su ñu demee ci les échos lu ñu gën a fësal ñëwaat nañu ci inondation yi mais inondation yi temps yi lëmbe nañu Sénégal de inondation dans la banlieue Macky calme son impuissance ah way yéen a ko wax Macky dafa impuissant foofu ah du samay kàddu les échos ñoo ko wax nee nañ daal impuissance am daal la ñëw foofu calmer ko naka la ko calmer le président ne peut pas arrêter le ciel ni l'eau jàppaleen ni Macky Sall mënul arrêter asamaan si mënul arrêter ndox bi je peux les moyens pour faire et d'éliminer les conséquences Babacar Mbaye Ngaraaf parle du hors sujet le maire Moustapha Mbeng copieusement huée jàppaleen daal Macky Sall nee na mënuma arrêté asamaan si mënuma arrêté ndox si lu ma mën daal dinaa joxe ay moyen pour ngeen wàññi conséquences yi Babacar Ngay Garaaf nag nee na Macky ba mu ñëwee hors sujet la def xam nga nga dem école ñu jox la dissertation ñu ne ñu parler nu de l'eau de l'agriculture yow au lieu que nga wax eau agriculture nga dem di waxi mécanicien bi ak mason bi nu ñuy tabaxee kër loolu mooy hors sujet maire Moustapha Mbeng nag yaakaar naa ni du fàttee arrivé Macky Sall démb foofa ca Kër Massar ndaxte ba mu ñëwee dañ ko yuuxoo yuuxoo ko ba mu sax ay doomam jabaram sax yuuxoo nañ ko Moustapha Mbengue li la daal dama jàlloon la de suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Stade Sport Sport lu mu fësal tey nous sommes déterminer à lever son honneur muy kan muy Massata Diack ak Lamine Diack nee nañu pare nañu pour déterminer wu pour laver seen honneur ndaxte liñ leen waxal dara nekku ci ñoom bi ñu nekkee Sénégal lu baax lañ leen xamal def lu baax def teraanga kon tey du ñu toog fii ba pare ay tribunal français di leen tuumal ay escroquerie ay njuuj njaaj Pape Massata Diack nee na nous sommes déterminés à laver notre honneur kon na ngeen wut saabu bu baax wut kotol wut détergent wut alcool bu baax wut eau baax pour ngeen mën a laver seen honneur waaye en tout cas daal cinq ans ak cent millions de pour mu set yaakaar naa ne foog ngeen wuti njaago yi de ñu fóot leen ba mu set wecc ba tey ci stade ñu ngi fësal lépp lu jëm ci mercato transfert bloqué les lions sont-ils trop chers ah transfertu lions yi bloqué nañ ko de dafa mel ni lion de la Teranga yi dañu cher de xoolal nataalu kii di Kalidou Koulibaly xoolal nataalu kii di Sadio Mané nekk ci Liverpool en tout cas ñoom ñëpp seen mercato bi seen transfert yi bloqué nañ ko dañoo cher wala cheruñu en tout cas c'est des lions Gaynde Njaay mbara wàcc nii daal la jom di nuyoo jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu leen indilee li gën a fees ci seen yéenekaay yi tey aljuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atum 2020 di leen ñaanal bëccëgu jàmm di leen jox di daje ëllëg ci suba incha allah d'ici là nous vous souhaitons de passer une excellente journée juma mubarak a tout le monde